ki jiite xew yii tey muy Cheikh Ahmadou Tidiane Sy li ma sant daal fexeel ba ñëpp waxtaan ba te bañ ne loolu mooy sunu doxin ndax conflit politique dañu cee te man na noo waxtaan. ba ku na jàpp ci dara. te dara du yàqu. te dara du yàqu. te loolu moo gën nag. ne kon. ñu ngi koy dox. ñu ngi koy waxanteeg yéen. nee na defoon na ko ci sa nopp bii. def naa ko ci sa nopp bii. maa ngi koy def ci noppi ñeneen ñi. ndax suñu réew mën a am jàmm li xew ci àll bi ñëpp di ko gis ju lu jullit ak jullit bon loola dëkku diine boo xam ni Seydi Aj Maalik jaar na fa ba jàll Serigne Touba jaar fa ba jàll Cheikh Abdoulaye Niass jaar fa ba jàll ñooñu nga xam ni ñoo incarné. nga xam ni ñoo incarné. vertu l'islam. vertu l'islam. te loolu la ñu sotti ci nit ñi. te loolu la ñu ci nit ñi nag. kon. war nañoo mën a am nit ña fa nekk. wuuteeg nit ñi ci des nag. te mooy lu ñuy wut rek. ñu wut ko ci déggoo. ak bokkoo. te ñaasante bañ koo lal. kon nag tabaarakallaahu yal na yàlla jàppale leen bu yii paasee nag dinañu ko wax ak yéen ndax loolu la ma bi sant te lim ma sant laay def tabaarakallaahu ni ma fexeel ba ñëpp juboo xam naa lu jafe la nag waaye nag yàlla lu mu yombal mu yomb tabaarakallaahu jaageen jëf